ànd ak euh, géey Gueye ñu ñëwoon fii tey teew pour waxtaan si wax dëgg yàlla ci ci ci événement bu ñu jëm le 6 novembre ci diggante Papa ak Siteu waaw wax bi nag xam naa ni du gudd trop parce que guddi na te affaire yi affaire yi xaw na compliqué tuuti. waaw yéen ngeen su ma la laajee lu ngeen doon ci parcelle et puis lu ngeen di représenté ci parcelle rawatina ci sport parcelle rawatina làmp rawatina Papa Sow. bu ñuy wax parcelle Parcelles Assainies defe naa groupe les experts moo tax ñuy wax parce que ay sportif lañ ay anciens joueurs footballeurs anciens mbër ay mbër actuel ay arbitre mbër arbitre football journaliste lépp mi ngi fa discipline yëpp ñu loolu ñuy représenté ci parcelle Papa Sow nag suñu xarit la suñu wëllëre la suñu mbër la suñu champion la mm-hmm. waaw ñu am yaakaar bu rëy ci moom ah. te nag ba xale bu ndaw ba léegi lañu ko xam nekk moom chaque guddi chaque bëccëg ñooy nekk te xamuñu ci moom leneen lu dul yar. kenn xamee wu ko yàq lamb kenn xamee wu ko wax loo xam ne suba dañ koy joxoñ waaw ñu koy ñaan nag supporter Parcelles Assainies comme jàmm gën yëpp. Ah. ñu ñëw ci yar ak teggin. ñu bëre ko si jàmm ak salaam. Mm. que le meilleur gagne te yàlla na yàlla def mu doon. Papa Sow mooy doon le meilleur mu am ndam lu rëy ci kaw Siteu ndaw lu sedd guy. te mu doon lu gën ci moom. amiin mais tey pour sensibilisation bi dégg nañ Papa saa su ne day insister ci sensibilisation bi. ci waa kër Siteu ci waa kër Papa Sow. tey ji boo amoon kaddu yoo leen di ñaax muy supporters yi ñoo tax ñuy wax ci sensibilisation bi lan nga leen di waaw mooy li mooy li Papa Sow wax rek te te xaarul ba dajeeg Siteu pour wax loolu Papa Sow ku ko xam ci ay kàddoom noonu la Moussa waxee loolu la xam Papa Sow xamul violence. waaw li ñuy mooy li ma wax rek moom laay waxaat léegi rek li ñuy ñaan mooy supporteru camp Parcelles Assainies ñu ànd ak dal nañu ànd ak dal ñu xam ne mënuñu wax coow histoire ba affaire bi du mujjee ci Papa ak Siteu ci biir ci biir géew bi li ñu mën mooy ànd ak dal sañse ba rafet dem stade toog seetaan suñu mbër yàlla may ko ndam bu sedd guy loolu la ñuy ñaanal nag waa jàmm gën ñu ñëw ci dal ñu ànd ñu ànd ak yar ak teggin xam ni sport rek mooy gagné yàlla nag moo xam kan mooy gagné waaw il faut ñu xam ne nag sport dafa ànd ak victoire ak défaite ak machine nul te benn dina ci am le 6. te yàlla doon ndamu Papa Sow. amiin amiin ñu ngi kii tamit day wax ah, parce que Papa pour être bref quoi moo tax. léegi ñëw ba tey ñu gi ci groupe les experts ah. ñëwal ñu ñu mu fàttali ñu ah, tur bi Babacar mu nuyoo ak ah. euh, internet lay seetaan. man la magget gee ñu ma woowee Van. Mhm. bokk ci groupe les experts waaw. groupe les experts lan moo ko waral dara dara. waaw comme ni ko Papis waxee rek du ma ci jaaraat. ay sportifs yu daje yoo xam ne ay footballeur ay mbër ay arbitre vraiment def benn groupe boo xamante ni pour doxal pour doxal sport parcelle moo ñu tax a ñu nekk ci boobu ba léegi nii presque sept ans ñu nekk ci liggéey Papa Sow sax ci groupe bi la bokk moo tax bu amee bés bu mel nii yoon la ñu ñëw teew. en tant que expert tey ñu gis ni parcelle yëpp a génn champion yëpp a génn tey. Mm-hmm. gis nañ fi Modou Lo Franc gis nañ fi Gora Sock et tant d'autres ay champion gis nañ comme ni nga ko waxee rek parcelle tey dafa am bis bu rëy comme bés yi Modou Lo daan am moom la parcelle amaat rek ndax Papa Sow champion la boo xamante ni kenn du ko naatable kon bésam bii bis ñor nañu ñor boo xamante ni lépp lu war ci bis bi rek dinañ ci taxaw incha allahu rabbi waaw di ñaan yàlla nag lépp rek ñu def ko ci fair play waaw lan ngay wax papa en tant que expert waaw papa man du ma ko wax dara ndax dama ko xam ndax papa lamb da koo donn papaam champion la woon grand frère am Ousa def na lu ne ci làmb moom mi ma seetaan ko mu nekkee mbapat ba léegi xam ko bu baax suy bëree damay tëdd nelaw parce que xam naa ay qualité moom nag mbër la champion la yàgg na ci làmb am na ay tolof tolof yu yoo xam ne ñaari yoon boo dem mu mu am am ndog loolu jàngat na ci te moom dina dina xam nan la koy réparé ba Sow ñu ngi koy yàpp na ko daal mu ànd ak dal ànd ak duñ ko wax discipline sax ndax mbër la moo xamante ni mbër boo qualité yi nga xamante ni pour un champion la dafa nekk ci moom ndax dafa am sérieux dafa am sérénité te ñaaree dafa baax ci champion te papa daf ko dajale macha allah kon ñun suñu xel dal na ci moom ba pare xam nañu liggéeykat la te ku fonk li muy def la parce que koo gisee ay magum jëm yor seen i njaboot bàyyi leen ñëw fi di toog c'est parce que ki ñuy ki ki tax ñu koy def nekkul koo xamante ne day fo ndax dañoo xam ci moom fulla xam ci moom fayda xam ci moom respect ba pare bés bi am na ci moom yaakaar trop yàlla bu yàlla tas yaakaar di laasaat un appel nag un ndax jamono su mu toll léegi dafa dafa tërëdi ak violence bi ñu ngi ñaan waa jàmm gën ak waa parcelle ñu xam ne ay doomu ndey lañ benn bés moo leen boole lamb moo leen boole ñu dem si jàmm bëri ci jàmm ñibbi ci jàmm incha allahu rabi yàlla ma ñu ndam. papa ñëwul papa ñëwul mais papa Babacar toogal rek bul déplacé. non jóguma jóguma papa ñëwal rek. waaw mën nga toog yàgg noonu. yaa ngi taxaw leen rek mais gars yi ñu ngi taxawoon baax. taxaw leen gars yi. eh papa Sow. kay jege nii. kii ci la bokk. madame ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu wér. Euh, tur bi nan la. mais mu ngi lay yéen ban taxawaay ngeen am si parcelle rawatina parce que maa ngi lee remercier si question yi di la wax avant tout Papa Sow suñu frère dañoo bokk dëkk bis mu parcelle mu yaru lool mu yaruñu nekk suñu frère boo xam ne ci lu ñu nekk rek da taxaw moom aussi ci li ne rek dañ ciy taxaw bu baax a baax mu am combat nag ñu koy ñaanal victoire mais mu ànd ak euh, sportivité ak fair play zéro violence ci suñu côté ñun parcelle ñun kenn xam ne violence donc dañuy ñëw sañse seetaan euh, pas daan ñu ñibbi nànk. amiin te loolu lañ koy ñaanal. côté mobilisation bi parce que boo xoolee Siteu dafa bëri mbooloo macha allah te la fois passée dafa feesoon stade bi tel bi yoon est maanaam dinañ leen mayaat ngeen toog comme nañ ko defoon parce que njëkk yaakaar naa keroog waa parce que ñun dañuy teel a dañuy mobiliser. teel a ñëw stade damay ragal waa Cité bu ñu ñëwee dañuy fekk du ñu am fi ñu toog ñoom. ñii daloon bi paa. defe naa looloo la ñuy dal. parce que tax ñëpp jug nañ parcelle kenn desatul. ñoom ñooy xaar bi yoon. ñoom ñooy xaar te dafa jot ñu xaar sax aussi. waaw waa waa jàmm ge. waa jàmm ge dañuy xaar bu baax ñi ngi leen ñaanal nag wér. Uh-huh. ñu fekkee bis bi ci jàmm ak salaam. mais bu ñu ñëwee aussi bu ñu leen daanee dañu feex play. Uh-huh. ñibbi nank waa. am na solo madame Diouf nga ñëw. merci beaucoup papa ñëwal bokk mu gaaw a jël. jëloo kii jëloo kii jëloo kii jël leen kii. non non non. Eh, Papa ñëwal non non sa waay jël ko doomu kan kii koy jël koy jël sëriñ Ndiaye benn benn ali sëriñ Ndiaye mu bëgg kat rek seen micro dafa bëri de aja aja aja mais bis bi moo toll noonu gaay e gars yi ñu dégloo dégloo dégloo amee léegi mu jeex e mbokk yi jërë ngeen na e mbokk yi mbokk yi jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi mbokk ñu ngi jëm ci bis bu mag muy bésu le 6 novembre ànd ceeg jàmbaar production jàmbaar production woowoon nañu ci bés bu mag ci diggante fàtte ñu jógee foofu ñu ñëw ci bésu le 6 novembre Papa Sow ak Siteu mbokk ñu ngi leen di réew mi di nuyu biti réew Papa la ñu jàkkaarloo wuré wa dem na këng Babacar Babacar wuré wa dem na këng waxe mag dem na nim taali waaw faaw bàgg war mbaam faaw jël am kan nga niñ ko xamee doomu Parcelles Assainies boo xam ne duma ko incha allah incha allah day baax on est taxaw gaay ne nañ gaay ne non jigéen du baax gaay ne nañ ngeen jóg de yéen ngeen Eh, Babacar da ngay wetu da ngay wetu da ngay wetu da ngay wetu rek da ngay wetu rek Babacar ma recommencé waat ah. na bàyyi leen ko mu wax nag sama gars yi sama ah. waa eh mbokk yi aywa waa gars yi yéen yéenay noppi yéen cameraman yi vraiment baax la ubbil ay eh, mbokk yi jërë ngeen jëf mbokk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di am mbégte ak contentement bu mag mbokk di leen xamal ni ñu ngi jëm ci bis bu mag muy bisu le 6 novembre kan àndal jàmbaar production mbokk yi jàmbaar production woowoon nañ ñu ci bés bu mag boo xamante ni dootuñu ko fàtte souvenir indélébile de arène nationale waaye tey Siteu ak Papa Sow ñu indil le 6 novembre jàmbaar production jële jërë ngeen jëf ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax ndax bis bi ngeen ñu indil bés bu rëy la ci wàllu làmb Babacar kan nga jàkkaar lool Baye Balla mu ci jàkkaarloo moom mooy Papa Sow bu mhm. ko déggul tamit xam nga ko mhm. ci sportu Sénégal bi ñuy wax làmb mhm. yaakaar naa ne bokk na ci royukaay sport làmb tey parce que nag yaakaar naa adversaire bi muy bëreel ñàkk na ki ñaan ba di ko wax muy Siteu te loolu mooy li am te loolu li ko ko may mooy hygiène de vie bi maanaam fonk li muy def man li muy def waaye nag Baye Balla loolu xam naa bu ci buñ ci duggee dinañ fa yàgg te comme daa guddi n ko dem ak moom ci question yi rek Papa Sow ñu ngi lay nuyu di la ziar fekk nañ la tey Parcelles Assainies boo xoolee presque bi na fi say mbokk ñëpp génne nañu Papa nga jëm ci bés boo xam ne dëpp ñu ko dooree ba tey dañ ne Papa Sow day nooyal rek loo wax rek Papa sotti ci ndox mu sedd mu wàcc Papa Sow lu xew seetaan nga jon waar yaa mu ngi lay seetaan looy wax waa Sénégal Papa. waa salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu uh, mbokk internet yëpp ak mbokk téléspectateur yëpp di leen jaajëfal yéen ñi fi teew bàyyi si nit yëpp. balaa maa dem fen nuyu kilifa yi nga xamante ne mooy tey kilifa parcelle mooy les experts uh-huh. ñuy nuyu ñëpp ku lixum nag gis seen taxawaay gis nañ seen yéene fii ci Parcelles Assainies ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal nag waa Parcelles Assainies 1 ba waa Grand waa Patte d'Oie ñu ngi ñëpp nag kilifa yëpp ak Yoff ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwun kenn quoi uh-huh. waaw ñu ngi nuyu Dakar yëpp nag nan nga waajee sa diggante Siteu papa uh-huh. gars yi nañ boobu ba tey da ngay papa lu xew waaw mais xam nga ñun ay sportif lañ am loo xam wax ju sax bu bëree sax dootul neex jëf ah. jëf jëf bee dàq man ku ma xool xam ne pare naa pour joxe sama bakkan ci le jour ji. pare nga pour joxe sa bakkan. pare naa pour joxe sama bakkan ci le jour ji. Ah. mais nekk fii di daaga sante yu doy doy non néew ma ci logique boobu sax. mais Babacar ku xam si xam ni ku mën a déstabiliser. adversaire waaw loolu mën na ko lool. ndax arène nationale da duy ba mu fees papa. Mhm. nga ñëw si te nga ñëw stade fekk supporteru si tey duy ko ba mu fees est-ce loolu du la déstabiliser. waaw loolu su dee complexe ñun bu ñu delloo ginnaaw tuuti ñu fàttaliku 2002 Sénégal mu joué ak France ñetti Sénégalais fa nekkoon te France da leen gagné sportif bu bu pare dëgg dëgg dëgg biir jàmm gën stade Mbao bu ñu bëggee ñu yóbbu fa làmb boobu ma duma ko daan ko maa ko mën fuuf nga ko ma duma ko daan ko papa yaa ah niveau baa ngay yéeg de nga ne nga duma si tadaan stade stade mbaa bi laa bu ngeen bëggee bu amee terrain sax xam nga fi ñu entraîné wala terrain bën bën ñu dem fa organiser fa combat bi dix combat dix combat du am benn ma door ko onze fukki combat fukki combat ma gagné ko onze fois ndax dina am benn bu mu ne daanuwuma waaw ah, dina am benn bu mu ne daanuwul ma dooli ko beneen muy onze muy onze waaw foo teg loolu dàq bëre la ëpp doole la wala gën a min lamb la xaw ma dàq bëre la xaw ma ëpp doole xaw ma dàq xaw ma min lamb pas-pas la ak tolluwaay te tollu naa ci gëm-gëm la ah. lu may doxal est-ce que xeex bi waaye ban xeex ndax Siteu dafa xarañ ci wàllu xeex bi ban xeex ba loxo càmmoñ ba bu bëggee ñu jàngal ko xeex hmm, su bëggee ñu jàngal ko xeex mais papa combat boo xam ne bi ngeen ko waree bëre dafa yàqu woon ba muy yàqu dañ laa gaañ kera waaw mu nekkoon lu la naqari ndax keras ku nekk xam na ne am nga naqar nga jëmaat ci bés ndax keras da nga xaaju ne day da ngay bëre say mbok ne la doo bëre bés boobu ñu tëggaat ko tey papa lan la la war a yëg. maanaam ban moo war a yëngutu foofu. waaw deret bu nar a yëngutu rek mooy dafa am fi jàlloon. waaw maa ngi profité mooy ndaw si toogoon fii rek jëkkëram mooy président zone. madame Diouf 8C may dem maa ngi koy nuyu. Mhm. grand Omar Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mooy président zone 8C. Ah. di nuyu président zone 8B Abdou Wahab ah. ñoom nee nañ ba passé def a mag mooy nawetaan dafa am jour boobu noonu dañoo taxaw ne ren euh, ren combat bi le 6 ah. wu 11 heures ñu dem làmb ja léegi bu demee làmb ja nag am na loo xamante ni maa ko teg sama loos maa koy gàddu maa koy doxal maanaam kon su ma la déggee mobilisation ba doo ko ko bàyyee loolu manquement bu ndaw la woon rek gars noonu gis ma nekk làqatu entraîné gis ñu ma pour ñoom papa nangam nangam li ma ci loon combat la légère mais ñu ma ñëw dugg seen biir ñu gis ma may entraîné may liggéey ñu ne lii fête la Hmm, le 6 novembre fête la incha allah mais tey dañ fi gis Papa Sow tey dañ fi gis parcelle ñëpp génn. wallaay Modou Lo. waaw Franc. waaw Góoru Sok. dafa mbër dafa mbër. et tant ay champion ay Albouri ñoom lañ fi gis. bés bi moo toll noonu. wala adversaire bi moo toll noonu ñu gis la nga contact ak ki nga xamante ni mooy Modou Lo. le roi des arènes waay. bés bee noonu wala waaw Modou ñoo fi nekk fii géej gi ñu nekk bu ñu àndee pare ñu fi nekk ba 21 heures toog waxtaan di foo di entraîner di bërëntu ba vingt une heure bu entre bu gaa yi ñibbee fii la ñuy toog di foo fii la ñuy toog di foo loolu nag avant maa ñëw ci da nga lekk da nga da nga xaw ma lañ sama lekk xaw ma lukki sa lañ waaw léegi ndax booy parcelles yi boo gisee tey Pastef bi ñu am ci man ku nekk danaan ma papa combat bi maa ak yow ba su ma dugg si stade bi si biir géew bi ànd ak yow jàppale la ci biir dama koy def te wane nañ ko tey boo gisee nii muy dóor dóoraat Dock Énergie parcelle mbooloo Sakku Xam-Xam Birane Ndiaye mm. euh, Sa Ñambour Grand Birine mbooloo mm. ku lim da nga juum Rock Énergie mm-hmm. kenn desul Sa Ñambour ñoom ñëpp wax naa leen ñoom ñëpp booy ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tey gis nga leen fii def naa parcelle ko xam lamb parcelle xam ne ne tey kenn desul mm-hmm. kon nag amul suñu amul lu rek di leen sant leen gërëm mm-hmm. te yaakaar gi am yàlla bu mu tas yàlla bu mu tas mën na am yaakaar combat bu gaaw ah mën na gaaw mën na yéex sans dépense man sama condition de baax ndax man li ñu li ñu li temps bi jox moom laay fooyee fii. temps leen jox temps bi ñu jox seen man moom laay fooyee fii. Hmm. mu gaaw mu yéex si te mooy bañ. est ah. ko fixé. non du ma ko fixé benn temps du ma fixé benn temps mais bu bëggee man li ma bëgg mu bëre ba lang. bëre bay. bëre ba lang xeex bay jureeku. papa sa première sortie ba waaw waaw loolu am solo Papa nekkoon na face face tour écurie la ñëwee jàmbaar tamit Wrestling Academy jàmbaar tour la li am solo mooy Papa moo am solo. Papa moo am solo leneen amul solo tour écurie mooy li wax nii booy dem ci dëkk dëkk ba ngay jëm amul solo comme ça nga dem États-Unis xamoo fa kenn yoroo agent de poste États-Unis ba day métti yow mais boo nekkoon Sénégal gi yor sa xaalis dugg si hôtel baax yi dugg si nangam loolu am solo moo tax am communication bi parce que di def say la presse am na hmm. boobu ñu ngi koy wax mais waxewuñ ko contexte contexte mobilisation la doon wax boobu dañoo nekkoon côté bee BCEAO bi di entraîné côté bu ndax fu amuñu woon place fii quoi léegi gars yi bëri daal ñu seetaan entraînement pour ñoom xam nga ndax xam nga boo tegalee ñaar defet gars yi bëri dañ ñun ci gis affaire yi di yendoog ñun non leneen kii waxuma la Siteu dafa war a bëre Siteu keneen lansaat si pare daanu jox keneen mu tax ngeen bi kooku daanu keneen tax ngeen bi si ngoon si déet waay waaw loolu la war a demee papa la six la six ban Papa Sow la ñuy bi daan dugg tuuroo soow mi sangoor yi war ko mu def rentrant bu doy doy waar loolu bàyyi dem ba mu lang tuuti xaw a laagaat yooyu loolu mënul est-ce que loolu mën nañ koo xaar loolu mënul ñàkk loolay am sax incha allah rabbi buñ ci amee bëgg jàmm ak salaam cinq cinq dina sàjj waaw tuus tuus mu rëy waaw bëre bëre bu rëy daan daan bi incha rabbi ji li waaw mën na la may tànk nga jël ah, day génn ba fu la neex ba fu la neex te tiitul ci yow loolu ci wàllu bëri la ci tànk yi nga jëm parce moom nee na day mayeeg ay ay mayeeg lebale man mayewu ma lebaloon sama xaalis liquide laa damay jënd ah waaw ba man leblewu ma mayu ma ñaanu ma damay jënd nee day jënd damay jënd tànkam boobu waxuma la tànkam tànkam bi moo fa ay waaw ban tànk ban may tànk lu may dem may ah, may su dee bu ma may dara bu ma may dara lu may may lépp laay jëlee bu ma may dara. maa ko gën a ñeme fuuf. maa ko gën a ñeme fuuf. maa ko gën a ñeme fuuf. yaa gën a ñeme fuuf. fuuf. papa papa gannaaw bi ma la nuyoo sant la sant ñu nga ànd ñëpp dañoo gis si ne dafa bëgg a bëre ak yow ba amateur yëpp kontaan. et da lay ñaan yéen ñaar ngeen taxaw bëre ba amateur yëpp kontaan nee loolu la bëgg ak yow le 6 bu eggee ci loolu bu eggee ci loolu xam nga lu mu ciy déggee jëlee ah, acam bu ngeen defee loolu ci loolu acam acam ah. lay dégg. acam ah. top 5. mais papa est-ce que du Siteu dafa teel a lire parce que koo xam papa Sow. waaw saa bu day dox sa kaw. loolu du changé ñu ne papa Sow ñu ne forum ñu ne wër ndomba la. loolu du changé est-ce que est teelu lire combat maanaam da nga gis nga quelle minute la. dinañ ñëw tijji par force mënul bañ li ma bëgg a def mënu ci mënu ci mënu ci dindi virgule incha allah non mënu ci dindi virgule su ma ko jàppee bu ma neexee dama koy wër ndomb bu dama koy yannu bu dama def leen ak leen ak leen ak bu ma jàppee tànk mën naa si def téeméeri prise ak te boo ci def du ko arrangé. waaw dëgg ma téeméeri téeméeri kele juróom-ñaar mën naa ko ci def. papa looy tàggatoo léegi. lan lay wax Baye Demba ak Djili. ak Djili Seck waaw ak Djili Seck ñaari Baye Demba pour sensibiliser en tant que mbër mu mag. non atia. waaw waa waaw man maa ngi profité nag maa ngi profité di wax waa Fass. moom maa ngi leen di woo kullihum ndax ñoom ñoo jël seen téléphone ñoom dañoo bëgg def ay car ñëw mm. ñoom ñoo ma ko waxal seen bopp vraiment ñu ngi ci liggéey boobu noonu maa ngi jaajëfal ñëpp lu mu gàtt gàtt ñoom nee daal bëgg na fa sax jëlee sax bu dee cinq car ñu jëlee ko cinq car def seen bâche indi ko loolu nag mbégte la mi dinaa ko zaalika noonu wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi ñu ngi may la victoire maa ngi leen jaajëfal ñoom ñëpp nag ah pour sensibiliser sensibiliser ñaari camp yi yëpp di wax ni ñun li ma dégg gars daal bëgg nañ def fête boo xamante kuy ñëw